Fatim combat bi jàppoon naa ne mooy gën a gaaw. waaw buur loolu nga waxoon combat bi mooy gën a gaaw mais xale yi da ngay waaru. da ngay waaru amatuñu jom Fatim ah, amatuñu jom ndeysaan combat bi yàgg na vraiment tey lu ma naqari fàttim ci combat yi. non buur combat bi kenn yaakaaru ci woon te Demba am na deux avertissement xaw ma trois. mais mbëri seen adversaire bu amee avertissement dañu jéem a rey combat bi. Jaba sel na ko Boy Jaba takk na ko daan na ko Boy Jaba takk na ko Jaba sel na ko Boy Jaba takk na ko daan na ko Boy Jaba takk na ko Jaba daan na ko le ministre Aliou Sarr kontaan na kontaan na tey